Mal convaincu On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans votre chaîne YouTube euh, Music. On est dans la troisième épisode de votre euh, émission Journal du Ragabsen. Vous connaissez des albums comme cette. On va parler de tout ce qui est news, de tout ce qui est actualité de vos, artistes préférés. Bon, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que amenez des jeu pour y Vous avez gagné des carte de crédit, des album des album Brill Fire, des album One Lyrical. À la fin de la vidéo, allons poser des question après réponse sur si commentaire rien ngeen alors pour cet épisode on va parler de J21 de Kao Public de toucha, de Elzo Jam donc de Ngodof, et de One Lyrical Légui Légui, si bir biir si musique. Music bon comme nous, ma ko au début on va parler de J21 J21 on avait parlé si on avait parlé du teaser Boom mu ci épisode un journal du rap galsen bi pour ñu ko un, pour nous ko sétane non mun ngeen dem sétane ko bon teaser bi c'était réalisé par Black Retina Black Retina aussi moi réalisé clip bi drop na clip bi bon à la fin du clip gis nañ ben slogan bu Bum, bum, bum, bum, bum, mu génnee foofu noonu muy IVK IVK xamaguñ lan lay signifier mais est-ce que Dieye instant yi nii mu ngi si benn projet boo xam ne mu ngi koy waaj a génne wala benn album wala benn mixtape en tout cas on ne sait pas affaire à suivre parce que clip bi dóob na trop euh, c'est réalisé par Black Retina comme je vous l'ai dit à côté beatmaking il y a Omzo Beat comme toujours. Bon, ensuite on va parler de Kao Prip Tip qui vient qui qui lui aussi a génne na clip bu bees bu tudd Waga.

ay ben son mom ak Omzo Dollar bokk na si album Omzo Dollar bi muy soxor remix bi muy soxor euh, remix bi wa muy mi ngi won ci album Omzo Dollar bi c'est un artiste bo xamni ne jar na xel trop et ñi ngi xaar projet am avec impatience ñu xol la la ñuy àndil et ensuite on va parler de tout ça tout moo génnee son bés boo xam ni saaga na ñëpp si game bi ñoo xam ni koo xam ni amoon na problème ak moom rek saaga na la saaga na ñi dof saaga na OMG saaga na Queen bi saaga na waay waay di yaa nga gën a xam di saaga na pasa bit pasa bit nee na moom mooy plagiat si bit si si si bit si si si si instrument bon son bi c'est un remix de du son de Joy Joyner Lucas un artiste américain bon, xamné ne moom moo génnee son bi c'est Devil's Work Devil's Work tout ça ñëw remix ko bon si texte yi texte euh, yi Joyner Lucas lu lu mu don wax ak tout lu mu don wax euh, c'est c'est presque la même chose parce que Joyner Lucas il était dans le même but ni la dafa clash gars yi gars yu bari ñoo xamné

Bon, ensuite on va parler de Elzo Jamdong et de Dude ñom tamit ñëw nañ génne clip bu bees bu Gentleman Remix bon man j'ai j'ai un problème avec euh, clip j'ai un problème avec son parce que son ça faisait partie du si si projet Elzo Jamdong Free Season 2 bo xamné ne na depuis décembre 2018 pourquoi attendre ba mois bi ni ba année pour ni ngeen soga a ngeen clip bi quoi bon ñu wax si côté clip bi clip bi ça a été réalisé par Young Fresh Young Fresh moo réalisé clip bi et on va parler si ñu def tamit ñu def kii prépare euh, son show of the year le 29 décembre 2019 à Paris on lui souhaite on lui souhaite le meilleur mu dem rajaxe foofu noonu ñëwaat bon ensuite on va parler de mon Lyrical mon Lyrical vous le savez bien day génne albumam le 27 septembre mais ce qui nous restait inconnu c'était la euh, euh, euh, tracklist bi ak nombre de featuring yoo xam ni ñu ngi si biir album bi bon génne na tracklist bi ak génne na featuring yoo xam ni ñu ngi si biir album bi album bi dina def 17 sons 17 sons yoo xam ne dina nekk en featuring par exemple Abiba ñoom ara ara ak Lubrique dina nekk featuring ak Bass ak Nix Xeykil Nix encore Omzo dala ñu dof ak kaw Prip Dip c'est un album boo xam ne gars ñu avec impatience dina génn le 27 le 27 euh, septembre inchallah et nous ko xaar avec impatience Nous allons def une réaction vidéo boo xam ne dina dispo si biir Wassare Music. bon enfin on va parler de Dip Doundou Guiss Dip a annoncé qu'il va euh, que dina dem euh, stade amitié stade amitié ça fait 60 mille places stade boo xam pour mbër yi feesal ko rek. c'est c'est c'est c'est c'est c'est c'est grave pour mbëri feesal ko rek euh, est-ce que euh, Diop dafa ñëw pour def benn concurrence ak Ngaaka parce que gis nañ Ngaaka ba mu génnee prison dafa song arène nationale te arène nationale ça fait quinze mille places te Ngaaka feesalu ko woon noonu feesal bi rek problème la woon mu Diop décidé mu ne day dem euh, amitié amitié pour feesal ko rek ngan ngandi problème la pour match yi fees ngan ngandi problème la mais mais quand même on lui souhaite le meilleur mon faire ça, bi parce que moom à domicile la que Grand Yoff euh yaakaar naa des gars ñu dina ñëw en masse gars yi ñëw en masse soutenir ko euh, voilà quoi. et euh, n'oubliez pas que vous aurez des des possibilités de gagner des tickets de concert euh, ticket concert bien ici si biir Musique et des cartes de crédit en répondant à la question suivante bon question oui question bi là la euh, euh, album bu Blue Fire di album bi nan la tuddu ak extrait album bi la pour l'instant ak extrait nan la question vous décrivez ça en commentaire pour euh, pour nous gagner nous gagner nous gagner nous gagner nous gagner on va vous offrir des des cartes de crédit des tickets de concert ay album pourquoi pas n'oubliez pas aussi de vous abonner d'activer la cloche euh, si biir Music pour que à chaque fois suñ dugalee vidéo ngeen ngeen bañ raté dar bon n'oubliez pas d'activer la cloche pour que à chaque fois suñ amé ay jeux ay émissions yu bees yo xamni euh, ça ça a un rapport avec vos artistes préférés pour que vous soyez notifié pour que vous soyez notifié bon c'était tout tout ce qui s'était passé cette semaine bi les lay chaque semaine on vous prend les acteurs de phare on vous on vous parle de tout ça là de manière bref yi na ma gën journal du rap Galsen biir Wassare Musique